Toubacouta boobu ñu jàppee vingt et une personnes loolu ngeen ñi xam ne lii affaire do dof la quoi camp militaire mu ngi ci biir dëkk bi camp militaire dëkk bi nga xam ne dëkk bu ndaw boo xam ne matul trente kër camp militaire a nga fa base militaire naka la nit ñoo ñu mën a réunion ci biir dëkk boobu militaire yaa nga fa ak ñoom ñu dem xëy di dem di rey nit beneen affaire boo xam ne dina leen choqué Ibou Sané Nafawut mooy deuxième personne bi ne moom fekkee na mu joxee deuxième bi pour wane leen nu ñu dugaleen teg militaire yi gis bi ñu ko jàppee mu ci kaso bi daf na ko ñeenti at ab militaire bu nekk ci base boobu dafa ñëw mu ëmbal jabaru Ibu Ibu Ibu Sané bi ñu nekk ci kaso bi. c'est grave ëmbal ëmbal jabar ji ëmbal doomam bu jigéen. pardon répété ëmbal jabar bu jigéen. Mhm. ci biir dëtt bi jàpp ko ba pare tudd ñaari doom yëpp tuddee leen reconnaître leen. te waa ji moom mi ngi en prison. mu ngi en prison. il est courageux pour vous dire pour vous dire. nga nekk kaso ñu biiral sa jabar biiral sa doomu jabar. pour vous pour vous naka la naka la dossier bi nekk aberration. su ma leen waxee loolu ñu si ñu si des tey ñu nekk ci biir kaso bi lu ñu la ñu toppee association de malfaiteurs mm-hmm. participation à ainsi de suite alors que association de malfaiteurs ça veut dire quoi la loi dafa ne dafay fekk ñun ñu xamante. entente préalable ñu ñu discuter pour ñu dem. Mm-hmm. ñu ci bare. ci biir kaso bi la ñuy doog a gisante. Mm-hmm. ku mel ni euh, Omar boo Bodian. mësut a gis nafawut mësut a gis ñoo ñëpp ñu ko présenté ñoom ne mësuñu ko xam d'accord d'accord on va permettre à Oulay de faire des observations en tout cas association de malfaiteurs moom li ci loi bi wax mooy il faudrait qu'il y ait une entente préalable déjà waaw entente préalable fu mu amul moom association de malfaiteurs day dàqu Oulay des observations d'après lu Babacar expliqué muy mel ni Pape euh, euh, day mel ni enquête bi dañ ko euh, dañ ko jaxase tam-tamal ko mhm. indi ci loo xamante ne juste pour nu mu tërati mun koo clore mhm. euh, ut seen i coupable toute fait d'après histoire bi nga xamante ne damay basé wu li nga xam ne mhm. euh, moom la Babacar nettali mais Babacar li ngay nettali yëpp est-ce que yow jël dox nga dem toog ak juge juge d'instruction bi waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom nga nekk di révéler parce que c'est vraiment grave pour des personnes yoo xamante ne ñeenti at nañ ko ci prison ci enquête boo xam ne basé wul ci dara dara dara est-ce que yow jug nga dem ci juge d'instruction bi wan ko li nga xamante ne yow def nga ko ci ci liggéey dem nga ba Toubacouta def say enquête est-ce que pro jox nga ko euh, nu mu tuddati preuve yëpp yi nga xam ne dajale nga ko. xam nga juge ba mu lay permettre nga toog am sañ-sañ di wax. soxlawul. Mm-hmm. man may dem di ko seet di ko jox ay preuve mm-hmm. juge dafa war a enquête pour seet ay information fépp fu ñu ko mën a amee. Mm-hmm. man Babacar Touré citoyen journaliste. ma dem ma defi enquête génnee ne que fang na buuma ko. ma ne lii laa gis. moom juge d'instruction bu fekkee ne uti dëgg moo ko tax a jóg dafa naan Babacar ñëwal nga jàppale ma à titre de renseignement nga ma information. kon yow li ngay toog si YouTube bi di def ay nu mu tëddee. reportage kenn mosuma laaj kenn mosuma convoqué. man maa jëlal Toubacouta bu ñu leen jàppee dugaleen ci kaso bi. ma dem fo dëkk ba ñëpp a tiit pour ma am sa ku ma waxal dañuy daw. kenn moo ñeme taxaw wax ma première information. Mhm. waa jooju ndeysaan tey quelques mois la ci teg mu génn àddina. man maa mujj dem jëli avocat maa ñëw saraxu avocat yi fii pour ma am kenn muy mettre clé dossier li pour mu dem mu taxawu ñii li may wax nëbbuma ko ndax dama ko fësal d'accord waaw Pape ñu gis ne li muy wax nii ragalu si dara parce que c'est c'est la première fois muy toog di wax ne nu mu tëddati enquête amu si leneen amu si yàgg na ko mais kenn mosu koo woo ci lu jëm lu mel nii mais pourquoi yow loo jàpp ne tey lan moo tax tey ñu bàyyi ba instant bi bàyyi douze personnes tey ñi ci des lu pourquoi en ce moment dañ ci bëgg a mhm. parce que xam nañ ni bu ñu leen yóbbee tribunal it. Mhm. boo ñëwee nga ne ma yow yaa rey. Mhm. xanaa dañ ma wax kan laa rey. nan laa ko dóoree bal. fan laa ko defee. et puis ban xam nga dafa am lu may lu may toujours lu may lu may lu may évoqué ci dossier xam nga li muy rëy rëy rëy lan lañ am. amuñu ay preuve téléphonique. amuñu waxi tappale bi ñuy wax SMS nee na ko rey nañ ñëpp. amul du du dëgg du dëgg. xam nga lan lañ ci am benn fital makk doom. boo xam ne ñu ngi koy fekk ci loxol Cheikh Oumar Diédhiou. ok Cheikh Oumar Diédhiou bi ñu ko jàppee mu ni fetal bi man maa ko moom euh, astafirullah sama papa bu tudd Abdoulaye Diédhiou. Mhm. moo ko moom Serigne la mu ngi Dakar Abdoulaye Diédhiou moom laa la wax encore soixante quinze ans la amoon daaw xam naa ren soixante seize ans boobu Serigne la mu ngi Dakar fital nokk doom rek lañ ci jàpp. leneen amuñu ko ci léegi d'accord mhm. ñoom li ñu mënoon a def mooy dañ leen war a bàyyi ñoom ñëpp ñu dem seen yoon mais loolu dafay nekk déculotté si ñoom xam nga lu ñu war déculotté désaveu Mhm. parce que du benn bu leen fàtte naa leen fàttali si encore bu fekkee ne fàtte nga Imam Ndaw équipe section recherche boobu moo jàppoon Imam Ndaw présenté ñu comme les grands terroristes qui ont au Sénégal ñu xëy non lieu ne ko boobu waaw comme bi ñu tourné ñu ne ñu on aura l'occasion de revenir largement sur l'affaire Imam Ndaw Thione Seck mhm. équipe moo ko dem defi nu mujjee non lieu euh, euh, comment il s'appelle bi ñu waxoon drogue ak affaire yooyu mhm. non lieu bii moo ci mujj parce que ñii la vérité mooy que loolu tamit bind leen ko je les défie parce que bu ñu demee ba tribunal parce que tey ñan lañ ci mere dafa am ñun ñoo nit yoo xam ne dañ leen ci mere mooy kan mooy Omar boo Bodian parce que Omar boo Bodian moom moo taxaw mu ni li mu mën a wax mooy MFDC bi may wax ci turam parce que ci laa bokk taxawuñu ñu bu ñu armée nar a dañuy taxaw reyante ak ñoom mais réer yi yi xew ba fa bayot suñu suñu yoon nekku si xamuñ ci dara hmm. moom ils peuvent utiliser sa déclaration contre moom parce que mere ko même bu fekkee ni aujourd'hui l'appartenance au MFDC n'est pas un crime parce que MFDC dafa am benn bureau bu public bu nekk biir Ziguinchor nit yi dañ fay réunion ñu ne ñoom MFDC lañ bokk kenn jàppu leen donc dañ ko considéré comme parti politique parce que bañ na sax am na benn ku sant Biagui ku créé parti parti bu tudd MFDC Jean-Marie François Biagui muy concourir mhm. ñu bàyyi ko mu bokk ci électoral bi mhm. kon mhm. que xam nga man li ma li ma gën a metti ci yëf yi mooy comment des journalistes sénégalais se sont laissés berner. Mhm. depuis très longtemps ci affaire bi. René Capain Bassène 1 mètre 55 la 65 kilos nit ku tuuti la judd ñu ne kooku moom mooy le cerveau moo organisé réunion moo ne kaay ñu dem reyee le 3 janvier. ki ko waxoon dafa ne le 3 janvier mu delloo ne noonu le janvier finalement mu ne noonu li ma waxoon yëpp dañ ma ko waxloo. Mhm. amu ci parce que. c'est le monsieur spécialiste des questions casamançaises ab journaliste la woon defe naa jaar na sax Walfadjri mhm. ñu xëy ñu jox ko poste pour mu liggéeyal leen ANRAC en tant que conseiller conseiller mais lépp loo xam ne gis nañ dana indi fitna ci Casamance mu wax leen c'est l'occasion Pape nag pour ma mhm. wax la defal la benn révélation fii mhm. René dafa mës wax ni dafa def rapport keroog bi mu yëgee nii rebelle yi ñu ngi préparé ci àll bi pour ñu rey ay nit dafa fexe ñëpp ñoo xam ne responsable rebelle la ñu mu mun a wax ak ñoom muy surtout César Atoute Badiate parce que César Atoute Badiate beneen domaine la gis naa ne dugal nañ ko ci nit ñi nga xam ne war nañ leen juger. ok beneen domaine la loolu. Mhm. mu dem seet leen ñoom ñëpp. César Atoute Badiate période boobu gars yi di préparer rey bi nekkul ci àll bi. boobu mu ngi doon Sao Domingo ba tamit ñoo commencé woon gumba. Mhm. ñi nga xam ne ñooy apprenti ñooy ay adjoint am lu ñu bëggoon mooy débarrasser wu de moom pour ñu jël place moom bi mu ko yëgee jéem na activer pour gars yi bàyyi seen projet de rey yi. René nee bi mu xamee ni mënul arrêter projet bi dafa bind rapport. mu yónnee ko premier ministre Boun Abdallah Dionne li may wax ay tour laay wax. Boun mhm. Abdallah Dionne mu yónnee ko général biram Birame Diop te mu nekkoon chef d'état-major général des armées. Mhm. mu yónnee ko Abdoulaye Ba te mu nekkoon directeur chaîne 4 bu Ziguinchor. Mhm. mu yónnee ko Antoine sambu bu nekk ANRAC. bi ma leen laajee man bi ma wooyee euh, Xavier jaata bu moom jaata Tour. ancien pilote aviation la. militaire la conseiller la ci Boun Abdallah Dionne bi ma ko wooyee dafa ma ne non Babacar du ma wax ci lii. dama insister mu ne ma danga nga bëgg a mêler le premier ministre ci yëf yi ma ne bëgguma mêler kenn dama bëgg a xam ndax René. bindoon na rapport parce que loolu la ma wax. dugal na ko ci ordinateur am d'ailleurs bi mu demee ne gendarme yi dem na ngeen seet ko ci ordinateur dañoo effacé lépp ci ordinateur ma ne ko est-ce que jox na la rapport boo xam ne jox nga ko premier ministre Boun Abdallah Dionne. mu ne ma duma ci wax. mais bi ma commencé sama enquête ma commencé def ay révélation ma Xavier Diatta ne ma tué la bonne voie. mais lii lii lii lii lii lii lii la lii la la exclusivité bi Pape mooy. d'accord waaw dafa ne du wax ak man. Mhm. mais am naa benn copain journaliste français bu tudd euh, François François benn journaliste copain mhm. français François bu ñëw fii Sénégal journaliste bi laaj na ko ndek René Capain Bassène jox na le rapport pour nga jox ko gouvernement pour alerter leen ni rébellion ci àll bi ñu ngi préparé pour rey ay nit. mu ne mu ne ko waaw journaliste yi jox nañ ma kii René Capain Bassène jox na ma loolu. mu ne ko Babacar Touré na woo na la ba nga sonn pour nga wax ak moom mu ne non du ma ko wax Babacar parce que Babacar pro Sonko la bugguma gars yi xam ne maa ngi wax ak moom. Hmm. kenn ma wax loolu nga ni. Xavier Diatta. bu Diatta Tour. moo ko wax ab journaliste. parce que journaliste tubaab la donc donc gouvernement bi jotoon nañu alerte bu leen doon alerte en fait. bi François Bader la tudd. François Bader bind ko ci internet. mu ne contacté na. Xavier Diatta Xavier lii la ko wax. ba ma jëlee article bi ma publié ko ci Kewoulo Xavier Diatta woowaat na François Badère ne nañu def sa tour ci signature bi parce que bugguma. Mhm. Babacar signé ko dañuy xale na Babacar pro Sonko la xalaat ne man ak moom ñooy liggéey. gis nga gis nga kon la moralité de l'histoire mooy le gouvernement jotoon nañu alerte. par rapport ak affaire mais am nañu alerte pendant longtemps ils dem bi waaw. ci gàttal. Mhm. la région de Ziguinchor. weñ munu fa naaw te état bi xamu ko cest à pour gàttal weñ munu fa naaw mhm. te xamuñu ko mhm. donc c'est-à-dire yenn yi bu amee mhm. c'est parce que quelque part y a un dysfonctionnement dans la chaîne de commandement ok comme ni mu ko waxee waa ji avertir na <laughs> mais est-ce que ko jox c'est comme waaw. eggale nañ ça me rappelle ce qui s'est passé dans l'affaire Karim Wade le rapport là bi expert banque mondiale boobu boobu le fait mu xam àll bi uh-huh. loolu lañ ko bëgg fayloo moo tax moom il faut ñu maintenir ko ñu mm-hmm. jëm ko juger ampoy pour sa mm-hmm. déclaration Jean-Christophe Diatta parce que mooy ki nga xam ne kenn xam ko ci dëkk bi dafa xëy rek ñëw mm-hmm. ak keneen koo xam ne dinañ ko dinañ ko cest à gis nga su ma la waxee kaw mu fali jëmee par exemple mu fali jëmee ñu ni rebelle la mu fali jëmee bokk na ci rey nit ñi ci lu ñu wax kañ la ñu gis ci àddina rebelle militaire bu jàpp ay militaire ay militaire yu jàpp militaire ci mbedd bi di ko dóor mos ngeen ko gis ay gendarme yu jàpp ci gendarme di ko dóor bu fa lay dafa àndoon ak ay euh, ay yi nekk seen dëkk ci 2017 c'est-à-dire un an avant affaire yi di am dem uti mat pour ñoo jaay parce que seen association seen ASC dafa war a dem mhm. rebelle yi encercler leen fekk leen ne leen waxuñu leen ngeen bàyyi àll bi bu fale mi nga xam ne pàpp la mhm. ñu jàpp ko simmi ko yaramu neen taatu neen mook ay doomam dóor ko ba muy bëgg a benn booy moo rëcc moom garaawul moom mun na ñëw dëkk ba yaaramu leen taat noonu mu daw si mu dugg si jigéen ñi timis jot na gisuñu ñu wax militaire yi suñu mbokk yi dugg ci àll bi ngeen dem seet leen militaire yi ne duñu bouger booy boobu moo ñëw wax dëkk bi jigéen ñi ñoom ñëpp ñu wodd seen sër ku nekk jëlaat beneen sër parce booy bi wax na leen ñoom ñëpp leen def yaaramu leen taatu neen booy boobu la ñu jox sër bu jigéen ñi ñëw ba seen góor ñi ñu ngi ne la ñu jël sër yi jox ko góor ñi jox ko booy bi mu daw jox góor ñi pour ñu muuru mu fal li jëmme boobu dóor ko ci kanamu ay doomam ak ay jarbaatam daf ko yaramu nen taatu nen kooku nan la mën a nekkee rebelle d' accord merci beaucoup merci beaucoup Babacar pour toutes ces informations yaakaar naa ni xibaar yi moom leer na nañu bu baax ba